di ko nal day garam di way ak sant soxna si xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàllaak ak léegi ko may soxna jaara gërëm leen it ndax dañoo ñëwoon ci màggal gi ngeen dalal ñu am kàddu yu am solo yu ngeen wax ñu am lu ñu génn gis kàddu yooyu firndewu bu baax a baax a baax ndax lañ ca doon ut yàlla may nañu lu kaweloo la kon ñu ñëw dellusi santaat leen ci loola te di leen fëddali ñun seen taalibe dong lañu rek amuñu grade bu ëpp loolu ak lu nit mën a wax wallaahi ak fii ma toog nii seen taalibe dong lañu seen jaboot lañu lépp lu ngeen xalaat ma wax ko ci kanamu seede bu ngeen ñu wooye wala ngeen yónnee ci ñun lu ngeen ñi ne yëkkati dinañu yëkkati lu ngeen ñi ne teg leen dinañu teg donc di feddaliwaat kóllëre moom waaw jërëjëf jërëjëf ñaan yàlla nag mu yokk mu yokk leen wér-gu-yaram bu baax a baax ndax réew mi soxla na leen réew mi soxla leen di Mbàkke ndax réew mi soxla leen li ma wax dama koo xam soxla leen torop bu soobee yàlla jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke. ñëw ci sama dégg la loolu xam nañ ko ci yéen loolu xam nañ ko ci yéen ñu ngi leen di gërëm bu baax Mbàkke xam naa nag bu lii lépp weesoo moom dinaa xoolaat beneen bés bu gën a dal boo xam ne dinaa ñëw ziar si ñu mun ko bu baax loolu dama koo ñaan ci ñaan ko en tant que taalibe ñaan ko en tant doom ñaan ko en tant que waaw loolu ñaan waaw sëñ bi say waaw bu soobee yàlla waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke dégg nañu trop di kunal day garam di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na haa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara